nuyu. maa lay fay. yaa ngi ci maa si jàmm baax. bi naka la. maam Boy. d'accord maam Boy nga nekk benn xale bu jigéen bi nga xamante ni bokk na ci ñi nga xam ne eh, ñoo ñu waroon dem ci gaal gi est-ce que mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir yi exactement rek naka la demee. waaw man dama dégg ne gaal day dem rek ma bëggoon dem waaw bi ma egsee ba si kee bi noonu si la policier yi dàqe man ma taxaw si lañ ma jàppee biñ ma jàppee yóbbu waaw loolu noo man gendarme ki ma jàpp sol na tenue yor arme waaw sama loxo la ndax moom dem. waaw d'accord lan moo la bëggoon dem ci gaal gi. li ma poussé waaw dama bëggoon dem rek yaakaar dem egga tekki teral sama yaay ak sama papa suñu famille surtout sama yaay parce que moom dama jàppale sama doom. waaw am na pàpp mais man sama yaay moo koy dundal te sama yaay es bi amul moyen boobu man maa ko war a jàppale. doom bi sama doom amagul at. da nga naroon dem ci gaal yi foo ko naroon bàyyi. non moom laa ko doon bàyyil. waaw. ndax nga sa yaay. moom maa ngi ko doon wax fan yooyu gaal gi di waaj maa ngi ko doon yëgal yooyu mais moom gëmuma yaakaaru woon ne man am naa fit boobu bi muy dem bi may waaja dem booba daa demoon benn dëj guddee ñëw ma bàyyi ko sama mag bi nekk sama yaay bu ñëwee nga joxal ma si laa dem mais ndogal am ñu jàppee ma foofu si kee bi. ndax boobu nga xam ne fi nga bàyyi woon xale bi waxoon nga ko si gaal yi ngay dem. waaw wax naa ka wax naa ko moom. d'accord ñaata nga paas bi ngay dem ci gaal gi. noo man paasuma de paasuma dama demoon pour dugg noonu rek. kooku def laa ne woon ma yóbbaale la wala nu demee. déedéet waxuñ ma ko waaye ma dama am yaakaar rek xam ne su ma demee gaal gi di dem duñ ma fa baay waaw. d'accord bi ngay dem lan nga def ci sa saak yóbbaale woon nga loo war a lekk ci yoon bi. waaw yóbbaale woon nañ kay lu lekk yóbbaale nañ ndox ak mbiskit comme nee nañ mooy dem foofu yóbbaale woon nañ ko. jigéen ngeen bi ngeen di dem. doonoon nañ kaat. Mhm. ñun ñëpp waaw ñett maa leen mag samay rakk lañ. d'accord ñaata jour nga def ci euh, kaso bi bu ñu la jàppee ci prison bi. biñ ma jàppee ay 22h 23h ñu jubal dem Dakar léegi bu ñu demee ñu laaj ma ma wax leen li waral ñu jàpp ma léegi après ñu biñ may bàyyi biñ may bàyyi bëgg nañ ma bàyyi mais dafa guddi woon si la benn jour rek laa fa mais defuñ ma dara lu metti daal tamit. mu nekk nii waxatoo waxu dem ci gaal gi j'espère que bëggatoo dem. man ak kay ak kay. gisaatee gaal da ngay dem. waaw bëgg naa bu ma gisaatee gaal damay dem de. mais bi nga fi nar bàyyi ñaata mois la sama doom si six mois. yéene ko fee dem ci gaal bi. Ah. yoon. Hmm? tante naa benn yoon waaw. d'accord ndax ki ñu faat jot nga ko gis. kala. bi ñu faat fii nii. ah ndax. ndax jot nga ko gis. non kooku bi ñuy dem bi ñuy dem bi ñuy waaj a dem bi ñuy waaj a dem lañ gisante si laa si laa ko nuyu si loolu bi waaw si mayga bi. xamante ngeen yéen ñaar. am naa sama xarit la. waaw d'accord kàddu yu yi nga xam ne mën nga ñu ko jox ci moom. waaw moom moom ku baax la amul benn problème kenn mësu ko dégg fii mu dugg si kenn. nit ku baax la ku yàlla baaxal xëy na ndogal moo ñëw rek. ndax sa yaay bii paa dina la bàyyiwaat nga dem bi nga ñëwee lan la la wax. ah du ma bàyyi de. du mu ma de bu ma bàyyiwul moom du dem. waaw na ma ay kàddu kay. mu ne ma mu ne ma bàyyi bu ma demati si yooyu waaw. non. maa ngi lay fay. Fatou Diouf. Mbayaa sama sama rakk jëkkëram la sama rakk jëkkëram la mu nekk nit ku baax nit ku am kerse ci doomu aadama Mbayaa lu mu xam Fatou lu mu am Fatou Diop Mbayaa Fall bi muy avant muy takk Fatou xaritam la woon barke Seydina Mohamed daga daan woo di koy yedd ñuy waxtaan mu koy wax léppam ba yàlla dogal seen diggante ñu ànd mu metti torop mbayaa téye lu ñu wax mbayaa na fàjjoob fàjjoob tam xamul ku dul mbayaa daawul dem fen suñu kër lay toog fàjjoob xamul fenn mbayaa la xam mbayaa nit ku nit ku baax nit ku am kersa nit ku oyof loo wax mu reetaan mbayaa man mii sax dafa am kersa si man daana bu daan wax ak man day sëgg nekk nit koo xamante nit ku simple mbayaa loo wax ma ne Fatou dama koy teral ngénteem li lu ne defal na ko Fatou lu nekk macha allah lu mu am ak lu mu amul lépp la defal sama rakk ji loo wax mu ne man faj maa ko bëgg sama bopp mbayaa barke Seydina Mohamed mbébét bi mu am si Fatou Diop yàlla na ko àggale sa àjjana yu kawe kawe yi ba bu muy dem na ko jóob damay dem damay teral te su ma demee dinaa woo aadama mu defaral la say këyit nga fekk sama foofu mbayaa lépp lépp lu mu amoon si Fatou Diop rek yàlla na yàlla fay xol bépp yéene bu mu amoon si Fatou ndax mbayaa amul ku dul Fatou ay magam yi ñooy ay xaritam ay rakam amul amul amul ñoom ñoom rek la xam ak yaayam mbaya am yërmande ci doomu aadama baax nit nit ku baax nit ku simple nit ku oyof dama koy ñaanal rek fi mu jëm gënal ko fi mu joge ah tiitaange jaaxle parce que ñun biñ ko man sama jëkkër mbuur la nekkoon moo siis mag mag la ci mbayaa bi ma ko waxee ma ni ko déedéet gëmuma loolu man que moo si nit ñi dañoo tiit rek dañuy wax rek loolu amul mbayaa dañ ko gaañ si tànk rek moom tam mu dalal ma mu ne ma fàjj dëglu ma nga def nànk yow maay wax ak yow dëglu ma yow xam naa la te yow am nga dal dëglu ma ma ne ko moo si loo mu ne ma mbayaa dañ ko tiire te instant yi wàcc na ma ne ko moo looy wax nii noonu ma coupé jël sama loxo yi def ko sama bopp lépp maa ngi toog ak sama yaay mais sama yaay waxuma ko dara ma noppi rek lépp maa ngi dem ak moom ma woo kii ma wax leen tëdd ngeen yéen ngi nelaw Amina magu kii mun a ma waa defuñu dara tëdd nañ ñu may tooñ noonu sax naa ma yow moo si dem na mbëkk ma ma ne leen moo si demul fen ñoom yëguñu dara man tam waxuma leen dam mais dama doon xool ndax ñoom yëg nañ action bi wala mais et instant boobu yëguñu dara après ma bàyyi si biir noonu benn instant ñu woote ñu ne ñoom yëg nañ action bi mais daam ku na leen mbayaa dañ ko jam si tànk noonu ñu nekk di yuuxu après ma ne sama yaay kañ dem ñu xooli ji xale yi parce que ñoom ñaar rek ñoo nekk si appartement ba bi ñu demee terewul ba tey man waxuma leen dara parce que xam naa samay rak ma dëfal ko moom mii ma ne ko yow mbayaa woote nañ léegi mu ñëw yooyu mu naan damay dem damay dem si mbayaa man mbayaa waxoon naa ko sax pour mu dem damay dem manika ah, faa jëb taxawal mbayaa instant yi ça ñu koy faj tane na dëfal ko foofu ba mu noppiwaat ñu yëkkati sama rakk bi wax ak moom ba ñu arrêté yuuxu yi lépp maa ngi dem ak sama mettit maa ngi dem ak sama naxar parce que mbayaa dafa nekk koo xamante ni kenn la si ñun bëgg sama rakk yërëm ko mbayaa comme comme comme Awa moo ko jur nekk nit ku baax nit ku oyof nit ku simple bëgg sama rakka ah loolu rekk ndax lii buñ ko bàyyee noonu sax day yomb parce que jàkkaarloog xare bu ndaw deful lu bon bayaa xalaatul ci àddinaam def lu bon liggéey rek teral ay waajuram teral soxnaam ay ay mbokkam yépp loolu la mësoon a bëgg kuy jóg di uti ji pour teral ay fameem nga jàkkaarloog moom tiire ka bal ñooñu duñ leen bàyyi ci àddina dinañ leen topp ba jusqu'au bout parce que dañ tooñ mbayaa dañ dañ ko tooñ dañ tas yaakaaram mbayaa dañ ko tooñ dañ tas yaakaaram maa ngi koy ñaanal nag maa ngi koy ñaanal bu baax fi mu jëm gënal ko fi mu jóge waaw alhamdulilah maa ngi tudd Maymuna mag laa si Faaj Jóob jabari Mbayaa mhm. dëgg la Mbayaa sama jëkkëru rakka la Faaj Jóob mais li ma mën a seede si Mbayaa avant ma laa seede si Mbayaa mooy Mbaye tooñ nañ ko tas nañ yaakaaram Mbaye fa jóob nii rek la bëggoon moom rek la xamoon am jabar ju ndaw même pas deux ans nga am doom Mbaye doomam ji sax man naa wax ne moo ko gënal léppam fu mu jëm day yékki dem ñëw mu ne day mbëkki àndax ay moroomam ñu tiir ak a bal mu dee ñu ñëw ne dee na loolu daal lañ si am jabaram ji Mbaye daa dee yóbbaale ñu bari wallaahi waxuma la jabaram sax mais ay rakkam yu gënoon a sës si moom dëgg la metti yàlla la mais metti na torop torop torop torop ay magam ay rakkaam ay dëkkandoom képp koo wax mu ne mbayaa sama xarit la woon ku wax da ngay yaakaar ne mbayaa yow rek la xamoon mbayaa faal man mii barke Seydina Mohamed man mii di wax ak yow nii dañ dañ daan waxtaan lu bari si xër bu ma ñëwee naka mbayaal mu ne Jóob nee du dem jokku sama yaay ma ne ko Jóob doo bàyyi kii mu de mënu ma du génn kër gi damay wéet man rek a fii ne Faye Jóob ba mu xamee mbayaa Fall la gëj am ab xarit la gëj am àndandoo faarawul ko kam mere moom na gis mbayaa rek loolu métti na du tay rek da après ngay xool mbayaa Fall yàlla na yeewoo àjjanay firdaw si barke Seydina Muhammad yàlla na dee di naflaayam jikkoy Mbaye Fall mooy li mu gën a li ma gën a marqué si moom mooy daa respecté doomu aadama Mbaye lijjantiwul ko dul dëbëgëy daba wadda fajjo maanaam daal ay ay ñikkas di daal doomu aadama yi Mbaye day dimbali ay doomu aadama macha allah mën naa na sax mënul woon a gudd fan ndax dafa baax tellement Mbaye jour du muy dem romba na ma ay minuit wallaahi ay boobu minuit jotagu sa may jënd si mayga bi ma ñëwee laa ko wax mbaa romb ma ndeysaan mu ngay dem mu ngay dox ndànka image boobu mënu dañ sama kanam ñëpp ñoom ñëpp ñu romb jël a doom baay bi ñoom diis ñoom aada mbay ñoom ñëpp ñu ngi dem nii mais bi ma xoolee mbayaa far daa mën ni man sama heure na daa tukki mais bi ñu ma tàggee dij ba ay 2 heures du may gis image boobu mbayaa ni mu doon doxee di romba di dem peut-être mu indiwaat sama bopp ne yàlla suñu borom moo ko dogal mais om doluwaay nañ xoolaat seen bopp daal nit dee dafa metti kenn werante ko mais dee bu su loxob doomu aadama duggee day gën a metti lii kenn du ko fàtte ba illaa yow mi diin mbayaan nag yàlla na suuf oyof si kawam dee di noflaayam